télévision Futur Média mbokk yi ànd ñun ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte lu si ak yéen ci seen émission Faram Facce euh, Faram Facce àllarba la ñu koy amal ci waxtu bi muy émission boo xam ne li ko tax a jog euh, dinaa koy fàttali euh, bokk na ci Faram Facce tolluwaayu réew mi ci wàllu actualité li ci gën a fës itam di wàllu politique ndax ku ne xam na ni politique moo ŋànk lu ëpp ci liy doxal réew mi muy ci wàllu tàggat yaram muy ci wàllu wérgu yaram muy ci wàllu koom ak wàll yépp ku ne xam na ni politique moom mooy définir. vision bi nga xam ni mooy jëmmal ak taxawal yéene yooyu nga xam ni am nañ ko ci biir réew mi ak doxalinam loolu nag mooy li sabab faram fàcce euh, tax ñu ci euh, am ay gan gan bu nekk itam ñu jàpp ni dina mën a gindi askan wi euh, ci ponk yooyu nga xam ni dafa yittewoo wàllu actualité politique tey nag ñu am ci mbégte bu yaatu di ci recevoir Bougane Gueye Dany moom nag ku ñu ràññee la taskatu xibaar la woon itam nekk homme d'affaires boo xam ni xam nañu ko ci biir réew mi waaye itam am nañu yaakaar ni bokk na ci mbër yi taxaw ngir laaj réew mi moom lañu fa fas yéene dalal tey mbokk yi euh, ci seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média Bougane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay sant di la gërëm Pape Ngagne ci invitation bi maa ngi sant bu baax a baax a baax. Bougane Gueye laa wax mu nekk tour boo xam ni dafa xaw a dafa dafa ndax dafa laal leneen lu dul sénégalais Bougane Guèye Dany Bougane séeréer yi xam na ni turu séeréer la mhm. euh, géej gi moom géejug Sénégal la mais fa ñu askano ñun ay naar lañ mhm. mais euh, suñu maam dafa àndoon ak euh, yi li njëmbat mbóoj dem xare je crois que loolu moom moo ñu boole ci askanuk naar parce que dafa des ñu jox ko fab soxna dafa des fan des ca Trarza ok mooy ca ca gànnaar ca gànnaar d'accord loolu moom moo indi wàllub naar gi mhm. euh, suñu waa kër ñu ngi fu nekk ci senegal ca Sokone fii ci Géejawaay euh, ca Ndar mhm. euh, doomu Ndar boo ne foo dëkk bu nee la rue de France doomu ndar la du dolli ndar et ñun 114 rue de France lañu dëkk donc euh, Bougane Gueye Dani bi c'est un surnom bu ma samay euh, moroom joxoon à l'école euh, au lycée Charles de Gaulle ma ko doon bañ ba muy Daniel ba tey mu lang ñu def ko diminutif di ko boole ko ci dàkkantal gi muy dani d'accord donc buggaan géy géy gi noonu la mhm. dani gi it euh, mooy ni ma la ko expliquer d'accord euh, dafa am solo ñu ñu taxawoon xëy na tuuti ci buggaan géy dani euh, mu wéral ni am na lu mu laale ak gànnaar du noonu la ah. voilà mu jiite benn mouvement bu ñuy wax gëm sa bopp mhm. lu ko sabab gëm sa bopp xam nga gëm sa bopp xalaat la tur la boo xam ne ay boroomi xam-xam mhm. ñoo toog ci ndaje ci waxtaan ci péncoo réew mi kenn ku nekk génne sa xalaat ba ñu jàpp ne jaadu na parce que réew mi ñu bari dañuy am yenn xalaat yu ñuy wéyal mhm. ñu ne ndax ab sahélien ab sénégalais mun naa wuyób socialisme ñee ni libéralisme ñeneen ñi ni communisme ñeneen ñi ne ay trotskiste ak cetera et cetera ñu ne loolu yëpp ay idéologie yu ñu importé la ñu jële bitim réew ñëw bëgguñu ko forcer ñun africain nga xam ne euh, tekkiwut ne li dox fële rek ca bitim réew rawatina ci réewu tugal yi war naa dox ci suñu réew parce que euh, idéologie yooyu yëpp booy xool fa ñu ko doxal ba mu indi fa njariñ mm-hmm. dañu nekk ci ay société yoo xam ne ay mm-hmm. société nucléaire la mm-hmm. papa yaay doom ak xaj bi ok alors ñun fii ñu nekk une société communautaire jàppalante dimbalante taxawante euh, sutura muy lan lan moo ko wutalee ak idéologie yi nga fi fekk lan moo ko wutalee parce que bii ku nekk ci ñun gis na ci boppam et bii ci biir réew mi la soqi ko maanaam gëm sa bopp ku ñu ko wax gis nga sa bopp mais mën nañ la wax ne socialiste nga nga ne bokkuma socialiste waaye kuñ ne gëm sa bopp ak foo mën a féete ngay libéral ngay socialiste ngay trotskiste buñ ne la gëm sa bopp yow gis nga ne philosophie la boo xam ne bu nekk ci yow la. d'accord parce que bugguloo tey contraire ba ñu teg ko ci sa kanam te xam nga li am solo mooy. Mhm. Euh, mooy bëgg sa réew. dama ne boo bëggee sa réew rek faw nga gëm sa bopp parce que dañuy wax xubbul watan. maanaam gëm sa bopp. ci jaamu yàlla la bokk ci jaamu yàlla la bokk. Mm-hmm. et kon yaakaar naa ne am na contraire boo xam ne boo ko dawalee dafay tekki ne bëgguloo sa bopp. ok kon li am solo mooy gëm sa bopp. mais bëgg bëgg bëgg naa xam dama la laaj dama ni. lan moo ko wutale ak yi fi nekk nga ne ma c'est parce que yi fi nekk dañ ko jëgaani. yi fi nekk dañ ko importé. dañ ko importé. Mm-hmm. tey boo ko doon indi ci kàllaamay tubaab. wala ci benn idéologie lan nga ñu mën a jox lan la gën a jege libéralisme la gën a jege socialisme la jege gën a lan la. sénégalais la gën a jege. nanguwuma lool nanguwuma libéralisme nanguwuma socialisme sénégalité laa nangu maanaam du ma wuti lenn fenn lépp lu ma soxla mi ngi ci sama biir réew bi non attends cest da nga bëgg a dugg man ci benn philosophie boo xam ni dafay xaw a doy mën nga ma wax sénégalité mais ci biir sénégalité mais soo ma waxee euh, soo ma waxee par exemple euh, bennoo wala nga wax ma ñoo bokk dara mais ku nekk xam na ni Sénégal seen lépp benn la mais loolu dafay dugg ci biir socialisme kon boo boo bëggee dàq socialisme wala nga bëgg dàq libéralisme du ma mun a comprendre lan nga fi bëgg indi. li ma fi bëgg indi encore Pape ngay mooy kaddu gëm sa bopp. waaw doonut lu ñu jéggaani lu bokk ci ñun la lu kenn ku nekk di dund la ci ñun. te kenn ku nekk bu doon sa sago xam nga ni gëm sa bopp mu jiitu ci lépp parce que ba ci yonent bi alayhi salaam suñu borom bi muy wax ak moom ci amana rasul daf ko wax ne ko gëmal sa bopp ba noppi doog a lu nit ñi li nga nekk kon gëm sa bopp ci ñun ni ñu koy doxalee mais yaakaar naa du indi bopp sa bopp mën mënu mënu koo doon parce que gëm sa bopp c'est un choix de vie. ndax li ma la wax aussi leer na. maa ngi ñëw. waaw dama ne gëm sa bopp c' est un choix de vie. Mhm. gëm sa bopp c' une philosophie. c' pas tout simplement un slogan. xam nga boobaak léegi nit ñi ay slogan la ñu fi nekk. d' mais ñun dañu bëgg indi un une philosophie. waaw euh, mu nekk benn appel à l' mhm. bu ñuy woo kenn ku nekk ci réew mi pour ñu comprendre ne liy defar réew mi kaddu ku nekk ak loxo ku nekk da cee war a nekk boroom xam-xam yooyu bi ñu dajee di tànn baat bi est-ce que jàppuñu woon nii du fi gan maanaam am na ku ñu ko xamee woon mu yor baat bi ba ñëpp ràññee ko ci baat boobu ndax tumuranke xam-xam moo tax ñu dal ci baat boo xam ne yàgg nañ ko fi dégg wala lan moo tax lan moo indi loolu xam nga euh, gëm sa bopp c'est une philosophie universelle et tey bu ma jàkkaarlook yow ko gëm sa bopp nga doo ma wax mukk le contraire j'ai lu ton livre lu ton parcours je sais que tu es un grand intellectuel pour moi intellectuel du ay diplomation moo koy déterminer intellectuel parcours la intellectuel capacité de recul honnêteté la aussi honnêteté la capacité de recul ak d'analyse honnêteté la aussi c'est important maa ngi ñëw capacité de recul voilà ak d'analyse ok donc ak mandu aussi mandu aussi absolument voilà ne tey gëm sa bopp mhm. c'est une philosophie mhm. boo xoolee saret yi ñu ngi ciy bind gëm sa bopp taxi yi ñu ngi ciy bind gëm sa bopp salon de coiffure yi ñu ngi ciy bind gëm sa bopp léegi mbootaay bi ma demoon seeti ca ICOTAF mbootaay mi gëm sa bopp la tuddee seen bopp am na ay mbootaay yu jigéen yoo xam ne tudde nañu gëm seen bopp yàgg na am na ci sax defe naa écurie mbër bu tuddee boppam bàyyi ma njoon gëm sa bopp donc c'est juste pour dire que képp kuy aspirer ci lu baax képp kuy aspirer ci loo xam ne mën na laa jëme kanam. nga bañ a usurper. non usurpation amu fi. ah kay gëwuma loolu gëwuma ne usurpation am na fi parce que de manière très claire euh, gëm sa bopp nekkut loo xam ne. gëm sa bopp mooy baf yëfu jàmbur. non gëm sa bopp kenn moomu ko am jom. am fulla wala fulla ak fayda wala jom ak fulla fii lañ ko fekk suñu ay valeur maam la suñu ay valeur u ancêtre la valeur la yu fonde réew mi valeur la yu bokk ci réew mi man cheikhul xadim laa gëm bi mu demee ci géej gi dellusi si dane du baatin du wilaaya gëm-gëm la kon nit il faut mu gëm boppam ñun ay jullit lañu nee naa la ci amana rasul suñu borom ci boppam bi muy wax ak yonante bi daf ko njëkk ni ko gëmal sa bopp kon gëm sa bopp nit mënu koo féetewoo te yaakaar naa ne nag bu ñuy wax pap ngañ gëm sa bopp ba yegg si ci buggaan nga xam ne figure la bu ko mën a symboliser dafa raam jóge ci suuf ñaaj ba yegg ci kaw jàll te kenn jàllewu ko xuus te kenn puusu ko nekk reporter ñaaj ba tey nekk propriétaire d'un groupe de presse. cest à dama yow yow li ma li ngay wax nii ma dégg nga wax ko ma gis nga def ci benn genre téléfilm xaw ma est-ce que yaakaar nga ànd na ak suñu culture aussi est-ce que loolu ci ni ñu xamee suñu culture euh, ci wanewu la ci lan la bokk de dix mille à quatre cent milliards euh, kenn jàppalewu ma kenn buuxuma tu pense que loolu lu ñu war a mën a bàkkoo la. Euh, yàlla si boppam boobu dafa fëgg dënnam. yow da ngay yàlla est-ce que. non dama lan mooy yàlla dafa fëgg dina. dama dama dama la bëgg wax ne. waaw encore une fois. Mm-hmm. li am solo. waaw du jëmmu bugaan. Mm-hmm. li am solo. Mm-hmm. mooy yéene ji bugaan am ak fa bugaan bëgg jëm. xam askan wi. xam nañ ko li tax a jóg bugaan. mais rafetlu nañ loolu mais lu ñu mënta dégg mooy. mais li wóor kenn jàppalewu ma tout le temps nga di ko wax. non non non est boo toogaatee doo xalaat nga ni am ci kersa. c'est important ku ñu jàppalewul mais est-ce que yaakaar nga ni am gëwuma dama la bëgg a wax ne euh, dafa am philosophie bu nekk ci man man gëwuma ku ñu jàpp euh, suuf bu sutantee dañ ko jàll ku ko njëkk jàll nag kan la ku ko njëkk jàll. non man fekkewuma biñ koy jàll. alors expliquez-moi comprendre dama ne dama am terminologie bu ñu lay wax naan la par exemple suuf su sutante dañ ko jàll ma ne ku ko njëkk jal loolu laa la laaj suuf bu sutantee dañ koo jàll ku ko njëkk jàll donc man je dis fexe ba jalal sama bopp ci loolu laa nekk et dama la wax de manière très claire ba ma ko waxee 2013 la ak léegi parce que dañu nekk ci réew moo xam ne dañu ta gaaw tilimal nit mhm. dañu gaaw a salteel parcours nit mhm. duñu nangul nit performance am parce que tey Pape Ngagne ña mu bokkaloon classe bu ñu ko gisee mu nekk un journaliste émérite dañu naan ah nangam sàngam lay am de mhm. parce que tey fi nga yegg mhm. ñoom bu ñu ko nangoo day tekki ne ñoom dañoo échoué dellu si ci Bougane yow personnellement cest foo mën a egg am na ay góor am na ay nit yoo ko àndal mais tout le temps ngay fëgg sa dënn fàtte leen mais loolu loolu mais loolu nga wax non mosuma fëgg sama dënn cest à ak lu mën a xew bi nga koy tabaxaat bi nga koy def am na ay nit yoo xam ne ñoom nga ci àndal euh, def ci seen euh, doole def ci seen Pape Ngagne seen xel mm, Pape euh, mm, je crois xëy na da nga mosul déglu ok je n'ai jamais utilisé le le le jeu chaque fois je dis nous non attends li nga wax fii. gëm sa non non c'est parce que tu m'as posé la question man nga posé man nga interpeller directement donc moo tax ma tontu la mais lépp lu may wax ci li itteel askan wi lépp lu may wax te mu jëm ci gëm sa bopp la may wax mooy nu ñun mhm. ñoo liggéey. Mhm. ñun ñoo def. lii la ñu def fii la ñu dem nii lañ ko defee nii lañ ko d'accord waxtaane c'est important président euh, Bougane ci li ma bëgg ñu gën ci taxaw mooy sa candidature Mm-hmm. c'est-à-dire nag il faut nga wax ak nit ñi nga lett leen wala nga firi leen cest à nit ñi aussi du ñoo xam ne xëy na da nga leen di fooye parce que mënuloo fi woote ñu ne ma nga grand théâtre ñu ne tere nañ ko ko ñu ne fële ñu ne tere nañ ko ko ñu ne xaar yàlla ñëpp taxaw di la déglu nga naan 500000 laay laaj 1 million c'est-à-dire lan mooy sa problème pour nga wax sa candidature nit ñi xam. lan moo ci lan lan mooy problème bi. xam ba xam da ngay nekk candidat wala doo nekk candidat mm-hmm. loolu wax ju leer la yaakaar naa ne euh, wax Bougane day nekk candidat loolu moom wax jooju mu ngi suñu ginnaaw loolu ñu ñi xalaat waxatuñ ko fi mu nekk nii kay. li ñuy wax mooy mais Bougane ko waxagul. non ma ne li wóor mooy. mais Bougane moo taxawagul wax ko fan. non ma ma ba ma ba ma mayee ma ñëw rek. je dinaa la expliquer li ñu bëgg a wax. xam nga dafa am lu am solo. le Sénégal est un grand peuple. Mhm. nous avons une grande nation. Sénégal waruñu koo caaxaane. et man loolu laa gëm. li ñu nekk di def c'est un point important de notre histoire et c'est du sérieux léttuñu wala nga firiñu bopp bi ñuy létt dafa njàmpi waaw baal ñu philosophie yi ngay du philosophie non non non non xoolal nekkuñu euh, ci wax. alors boo boo boo ma non non boo ma dégloo euh, président euh, xam nga lu ma bëgg Bougane li ma la wax aussi lu leer la. sa candidature laa déggagul nga génne ko sa gémmiñ loolu laa xamul lan lay. nuróol aussi Pape Ngagne buy bu tojut du jëriñ. allez-y d'accord allez-y da ne. Mhm. ma létt la wala ma firi la. non man kay waxuma man ñi nga xam ne ñoo lay xaar. man yaa posé question bi voilà allez-y. Euh, ma ne la bokk ñi nga xam ni foo woote ñu si la fa. te mais mënuñu fexe ba nga wax nopp boo noppiwul. may ma ma yeggale d'accord doo xam mu fu ma ma ak ah, allez-y alors jërëjëf. Mhm, mhm. bopp bi ñu war a bopp bi daa njàmpe kon pour nga létt ko faaw nga waajal ko. et loolu la nekk Pape ni n'oublie pas que j'ai fait 67 000 kilomètres pour produire ce document 67 mhm. 000 kilomètres pour produire ce document ce document résulte d'une écoute attentive des population sénégalaises kenn ku nekk ak jafe-jafeem dawalkatu Jakarta bi def ci participer nappkat bi def ci participer baykat bi def ci participer chauffeuru taxi bi daf ci participer professeur d'université bi def ci participer pilote avion bi def ci participer avocat bi et cetera c'est pour vous dire que toutes les couches de la nation dañ ci participer Pape Ngagne Sénégal nit ñi dañoo sonn. sa candidature. boo ma dégloo rek. may ma mais mënuma la ko déglu nag. ci nga bëgg ma ko bëgg ma parce que aussi man dama mënul comprendre depuis bientôt des des ay presque ay mois ngi nii ñi ngi yaa ngi yaa ngi tâtonné ci ci ci candidature bi. soo demee nga wax lu jëm ci loolu. xam nga Pape Ngagne dafa am léegi wax ju am solo boo xam ne wax nga ko. Euh, dama ne la Sénégal nit ñi dañoo am importance. Mhm. kon booy jóg di jëm ci ñoom. faaw nga jox leen lu nit ñi mën a dégg. am loo teg seen loxo moo tax. ma produire document bi. ok teg ko ci seen loxo. Mhm. moo tax tey bi ma xëyee ci journaux yi gis boroom xam-xam bu mag di Ibrahima Sall économiste. Mhm. ne programme yi génn gum yépp ak li mu liir ci programme yépp programme mu gëm sa bopp donc moo ci réaliste moo ci réalisable dama sant yàlla. et daf ma delloo ci démarche ba ñu doon dem xam nga. tey jóg ne candidat la moo gën a yomb ñaata nit ñoo ne candidat lañu mais tey ñaata nit ngay dégg ñuy wax seeni wax diw da da nga déggati kenn naan la Bougane day demam du dem déedéet dañ ne dañuy wut 65000 signa 77000 signatures. Mm-hmm. man ma ne 67000 signatures su ma ko amee 67000 personnes suñ ma voteelee 1 pour cent la ci ay élections. Mm-hmm. élections yooyu du ma ca doon grand mbubb silettement laa cay doon et comme je veux jouer les grands rôles. et que dama proposer un projet de société bu ay borom xam-xam lu xam ne lu mën a nekk la te lu ñu mën a jëfe la ñu ne jaadu na comme ñii dañu indi seen segg indi seen galgal ne dañuy tànn ñi ñu bëgg àndandool ñu ne leen ñun 67000 signatures taxuñu jóg xam nga nee nga fu ñu dem nit ñi toppuñu fu ñu dem mbooloo mi fekk ñu fa. gis nga démonstration bi ñu def xaar yàlla gis nga démonstration bi ñu def champ de course Thiès am na yeneen ak yeneen yuy ñëw donc nit ñooñu il faut engagement bi ñu wut ñun ñu fekk ko ci nit ñi moo tax bi ñu demee Thiès en dix jours de collecte ñu def douze mille et quelques signatures waa Touba bërki démb yónnee nañ ñu presque dix-sept mille signatures te ñu ngi continuer di di liggéey donc c'est dire de manière très claire boo ma boo ma mayee ma yegg la may ngay continuer xam nga dooni ma la nag yooyu tam dañuy faram fàccee je en prie dama bëgg nga wax ma ci sa candidature loo xam ni lu nit ñi mën a dégg la parce que aussi dafay nuru leneen dafay nuru ragal la wala da ngay làmbatu wala lan moo xew ah. candidature bi dégg kan nga dégg ci potentiel candidat yi ko xam ne déclaré gul candidature am ku dul yow fan nga dégg fan nga dégg ci biir élection bii ñu jëm ñu lim ay candidat wuñ ma ci ba ci sondage bi mu jigéen bërki démb dañ ma boole man ci biir sondage bi Bougane Gueye troisième position avec 14 point 32 pour cent quelque chose comme ça waaw man bu fekkee ne yow jàpp nga ne man du ma candidat non waxuma jàpp ah, non non yow yaa ko jàpp ma ne bu fekkee yow yaa jàpp ni doo candidat parce que yaa ko waxagul bu fekkee ne non man euh, de manière très claire les choses sont très limpides à mon niveau Pape Ngagne je vous ai dit tey politicien bu ko wóoroon ne day am 1 pour cent ci élection day dem ca élection yooyu. man ma ne 1 pour cent taxumaa jóg. dama bëgg jouer les grands rôles. je cherche entre minimum 500 000 signatures. mais nag la déclaration elle est importante. non mais cette déclaration déclaration candidature dafa am solo xam nga kaay kaay jiite ñu ju nekk. kaay war nga ñëw jiite moo ko gën. day fekk ñu xam ne bëgg ngaa jiite. loolu xam nga euh, du loo xam ne lu ñuy lu ñuy laam-laamee la tey. amul kenn ci Sénégal kuy lam-laamee ne Bougane jóg fa faj problème mu askan wi moom moo ko tax a jóg amul kenn kuy lam-laamee ci Sénégal ne gëm sa bopp li leen tax a jóg mooy changer ni sénégal yi di dundee amul kenn ci Sénégal kuy lam-laamee ni yéen a gëm sa bopp mooy seet nu ñu def ba Sénégal am geneen doxalin le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres du monde des plus soutenus des plus endettés des plus corrompus loolu kenn du ko régler ku mooy sénégalais yi ci boppam et fu ñu dem nit ñiy toppe ni nit ñi am ci ñun yaakaar c'est parce que tout simplement mhm. programme bi ñu leen tegal programme bi ñu teg ci taabal ji mhm. nit ñi am nañ ci yaakaar bu ñu ci amee yaakaar nit ki koy incarner moo tax et je vais vous faire une confidence Pape Ngagne est-ce que xam nga gëm sa bopp bi ñu koy tàmbali Bougane waru ko woon jiite parce que xalaat la Bougane am yéene la Bougane am dama dem gis ay kilifa yu bari wax ak ñoom mais je me suis rendu compte que ku ci nekk am na lu muy moytu walla am na tiitaange wala ragal gu nekk ci moom ma jàpp ne fi ñu jëm du pour man du pour yow pour sa doom la pour suñuy jarbaat la. d'accord pour suñuy sët la. Mhm. et ñun bu ñu sacrifié wul pour suñu doom yooyu. amul kenn ku koy def à notre place. Bougane dama la dégg nga wax kàddu bu Ibrahima Sall wax ci sa programme bii nga téye. yow da nga jël programme mu jàmbur wax ci lu la neex muy le muy livre solution bu Ousmane Sonko France ci 18e ñu seetaan la ci vidéo yi nga ni livre dafa tekkiwul dara livre munul defar dara nit ñi tal nañ leneen lu dul livre est-ce que loolu sa cër la ci koo xam ne itam sa nawle la mu am yéene nga am yéene. Euh, Pape Pape Ngagne je je je pensais que vous avez beaucoup de recul. Mm-hmm. parce que loolu laa xam ci yow. dama mos gëm ne doo bokk ci ñu naan teel nu ñu ne damm na. loolu laa mos a gëm. et dara du ko dindi. lu ne fang kenn du ko ji. li li ne fang. voilà li ne fang encore mhm. une fois. Mhm. dama def une rencontre à Paris. waaw il faut pas que concherche a à jaxase nu man ak Sonko. nous avons de très bons rapports. mais loolu la yaakaar. c'est un sénégalais la ñu gis. Euh, s'il s'il vous plaît c'est un sénégalais courageux c'est un sénégalais qui s'est engagé pour redresser le Sénégal avec les Sénégalais. Mmh. vidéo boobu dañ ko balancé mais waxuñu question bi jiitu vidéo bi. wax ñu ko alors xam nga man fu ma dem c'est des rencontres publiques. la ñuy amal et rencontre publique yooyu quelqu'un a pris le micro ne Bougane gis nañu sa programme mais lu tax binduloo livre ma tontu ko ne mbindam livre day fekk ñay liir livre ba am lu ñu jëndee livre bu fekkee ne nit day wutub dépense amul lu mu jënde livre c'est exactement ce que tu as vu dans la vidéo site internet bi ko balancé comme dañuy wut buzz dafa dagg uniquement ma réponse ne Bougane déchire le livre de sonk yàlla def moom si boppam muy nit ku dal biñ ci waxee téléphone mu ne ma effectivement lii nga wax nii lii mooy exactement sentiment man bi ma amoon et loolu laa confirmé comme ni ma lay wax rek. mais bi nga xamee ni bi nga xamee ni sentiment boobu nga am lu tax nga doon ci rek nga rectifier ci après. nga musuma rectifier. non wax nga ni wax nga ci ak Sonko waxul la loolu non non musu musuma rectifier dama ne. Euh, halte à la manipulation manipulation bi mooy tey dañu nekk ci logique gu parce que nag bu ñuy waxante dëgg coow li coow li coow li ñaari nit rek li ñuy tudd fi mu nekk bi ñaari nit yooyu ñuy tudd. ñi ci am jiixi jaaxa ñooy seet. ñaari nit yooyu ñooy euh, ñaari nit daal la ñuy tudd. non mais maa ngi ñëw ñaari nit yi ñuy tudd euh, mooy ñan. ñaari nit yi ñuy tudd. mooy ñan Pape Ngagne ñi ci am jiixi jaaxa. ñooy wut jaxase mooy Karim Wade ak Khalifa wut jaxase. diggante mooy Karim Wade ak Khalifa sal ma ne. man dama lay laaj. Euh, mboobu ma ma yeggale Pape Ngagne ñu ngi wut jaxase diggante Sonko ak Bougane yàlla xam na ne amuñu benn problème. moi je je que ñu concentré wu ci question yi mën a yitteel sénégalais yi. Mm -hmm. question yi nga xam ne tey sénégalais yi loolu la ñuy xaar. Okay. pour déterminer wu. Mm -hmm. n'oublie pas que le dernier sondage qui est sorti on a 13 pour cent d'indécis ci li ma liir 13 pour cent c'est énorme c'est quand même des sénégalais qui aujourd'hui ba tey xamuñu fan la ñu war a féete. Mhm. et ñooñu war nañu wax ak ñoom. à travers ce support bii nga ma may. ba ma mën a wax ak ñoom ñu xam yéenee gëm sa bopp. ak wax ji nga xam ne moom la ñu am ak yéene bi ñu am ak fa ñu bëgg jëmme Sénégal. d' accord euh, mille kilomètres nga ma wax moom nga def. absolument boo ko évaluer ci xaalis lu war a bari lay doon warul nekk benn oto warul nekk ñaari oto warul nekk ñetti oto ci essence ci gasoil ci per diem ci ci ci ci àll bi loolu ay million yu dul jeex la budget boobu fan la jóge Sénégal ëpp jar na lu ëpp loolu. non wax xam loolu werante wuñu ko dama la laaj. Sénégal da nga war a Sénégal jaral na ma lu ëpp loolu. mais waxuñu loolu dama la laaj budget boobu. dama ne fan la jógee. Euh, yàlla moom may dimbali man. waaw sama bopp. 67 000 kilomètres nga ma wax. dama ne euh, fi may wax ak yow nii xëy na romb na ko. Mhm. parce que rien que dimanche passé on a fait Bayax on a on a fait Ndiar 1, Ndiar 2. Wow. On est allé à Taïba Ndiaye. on est allé à Bayti Ndiaye. Mhm. on dama lay bëgg a wax ne non non dama ni xam nga la mënul comprendre ah ngay woo nit ñi ci transparence di woo ci ci ci ci anticorruption ñu lay laaj xaalis bi ngay yor ci budget di ko defee 67000 kilomètres fan la jógee nga daan doo ko wax. Euh, dama bëgg ba ci dernière centaine bi nga wax ko pour mu la Pape Ngagne euh, autorité. Mhm. bu war a tax man. Mhm. ma mën a taxaw di la wax naan la centime nangam. d'accord fii laa ko jëlee. d'accord gis nga transparence maanaam rek ma mhm. gis nga transparence ci loolu rek lay dox. Mhm. si tu te rappelles en 2012 quand on a fait une collecte de dons mu toll ci 500 millions bi ñu paree man Bougane j'étais pas soumis à cette réglementation mais dama jël lépp luy document yóbbul ko Cour des comptes. jël lépp luy justificatif transmettre transmettre leen ko dama ne la Sénégal bu doon x milliards ma war ko ci def pour sama ëllëgu ay jarbaat sa ëllëgu ay doom suñu ëllëgu ay sët jaral na ma ko du ma compter xam nga man waxoo xam nga suñu borom non ma ne ma ne ma ne ñi lay seetaan di la dégg. Euh, Pape Ngagne nga jël autant d' argent Pape Ngagne la ñu bëgg a xam. autant d' argent xaalis boobu. non xam nga xaalis ki mu jaaxal. waaw mooy ki jàpp xaalis leneen lu duy outil de travail man gisuma xaalis man outil de travail laa gis parce que xaalis boobu man maa ko liggéey. je suis dans le privé je me suis battu boobaak léegi ay nit ay sénégalais lamda dañ may fekk ma taxaw ñu yëkkati seen xaalis jox ma dañ may fekk ma taxaw ñu ñëw yëkkati seen enveloppe Bougane lii ñoo ko participer ci gëm sa bopp dañ ñuy woo ñu yónnee diw mu ñëw lii dañ ko jàpp ci gëm sa bopp cest à dama la bëgg wax ne c'est un engagement citoyen tey maire yi ñuy dalal ci koñ yi jeunes yi ñuy dalal ci koñ yi amu ci kenn koo xam ne bari na ci ñoo xam ne seen xaalis li ñuy jël dugal ko ci ba léegi fi ñu jóge ba ci léegi fu ñu jógee dem naa Italie Brescia génn fa lépp dañ ko jël en charge dem naa Bergamo idem lépp sénégal yi dañ ko jël en charge c'est juste pour dire xaalis encore une fois mënul nekk lu dul un outil de travail ki muy jaaxal mooy ki gis ne xaalis leneen la lu mooy outil de travail. non xam nga xam nga xam nga yaa jàpp ni kooku lay mais xam nga lay xam nga xam nga kan la yitteel xam nga kan la yitteel ki nga xam ni dafa danga bëgg mu dénk la ëllëgam denk la xaalisam. dafa war a xam sa mandute ci xaalis. mais sama mandute euh, sama mandute ci xaalis encore une fois je crois que nga euh, Ngagne li am njariñ. waaw mooy tey fan la ñu war a yegg ak Sénégalais yi dama ne la li may jël di ko def ci gëm sa bopp sama alal man mhm. moo ci ëpp. Mhm. mais sénégalais lamdaa dana ñëw fekk ma ma taxaw mu yëkkati soixante quinze mille am yëkkati quatre vingt mille am mille franc am marché occas fekk nañ ma fa yëkkati dix mille franc commerçant yëkkati dix mille franc yëkkati teg sama loxo ni ma maa ko jàppale. Mhm. mbokkub taalibe mais c'est juste pour faire comprendre de manière très claire que xaalis bi may liggéeyee sama xaalisu bopp la suñu borom dimbali na ma nag. Mhm. teral na ma ba maa ngi terle. Mhm. kon lu ma sol essence wër réew mi waruma jaaxal. 67000 kilomètres dama ne la 67 te fi may wax ak yow nii romb na loolu. yàllaa ngeeg leneen lu saf lu dul tele. Euh, président Bougane dama dégg ci sa programme nga wax ni boo faloo da ngay jël avion bi réew mi Sangomar jaay ko loolu nga wax ah. Mhm. nga wax. absolument. ok d'abord xam naa da nga juum sax saareen. la au lieu de Sangomar roplaan bi am ah, wuyu ma président yow laay déglu euh, lu tax nga am xalaatu jaay avion bi euh. pour jël xaalis bi nga ci war a def def ko ci njàng mi def ko ci santé bi encore une fois mhm. Pape Ngagne ay nit boo leen yërëmul mhm. mënoo leen a dimbali mhm. et Sénégal dafa soxla njiit bu ko yërëm suñu peuple dañu soxla njiit bu leen di bàyyi xel le problème c'est pas de jël avion jaay ko ou quelque chose comme ça parce que avion outil de travail la bu ay nit. jël yow xam nga ni outil de travail la ma ne ma ne outil xam nga ni du luxe. may ma ma ñëw rek outil de travail la bu ay nit jël féetewoo ko. te yemuloo foofu da nga ne li ñu am ci ci euh, oto itam di nga jël 80 pour cent yi nga jaay ko. alors xam nga Pape Ngagne euh, je crois que bu ñuy dégloonte. Mhm. parce que ñi ñuy déglu aussi dañu bëgg ñu jox leen explication yu leer. Mhm. cest bu ñu nee mhm. nga roof leneen. mën nañ leen a jaxase. ba lépp ci njaay mi la rek. non encore une fois. Mhm. Euh, dama bëgg nga comprendre ne. Mhm. balaa ñi ñu jiite. Mhm. di nekk ci luxe. il faut ñi nga xam ne ñoo leen fal. c'est pour kii ñoom ñuy xeex. avion du luxe aussi. may ma ma ñëw rek. Euh, avion luxe la ci réew moo xam ne tey indice de développement humain bu Sénégal. on est à la 47e place sur 53 pays en Afrique luxe la tey Tivaouane Peulh am na quartier yoo xam ne amuñu ndox amuñu courant tey Kër Massar. sant yow da nga bëgg a delloo réew mi ginnaaw. may ma ma ñëw waaw parce que li may wax xamuloo ko ci réew mi. yow lan ngay wax nii man avion bi laa bëgg ni taxaw ci bala nga may wax leneen. li may wax xamuloo ko. avion bi nga bëgg a jaay. xam nga xam nga li may wax. xamuloo ko te nga xam ni outil de travail avion yow la mën a yitteel. parce que yow yaa xam luy avion mais ki nga xam ne day day dem di root teen yenuy goj di xëcci goj di yenu ay paan kooku avion yitteelu ko ki nga xam ne ci quartier Bawol gi ci kër Masaar pour mu jugee këram dem ci tali bi day yéeg ci saret kooku avion yitteelu ko ki nga xam ne tey ci biir dakaar gi bu 19 heures jotee ci quartier Tawfeex Yaakaar day dem nelaw parce que quartier am dafa lëndam kooku avion yitteelu ko dama ne li ma gëm man mooy nit ñi ci seen bopp il faut ñu abréger seeni souffrance Serigne Cheikh Al tuum da doon wax ne la démocratie ce n'est pas le fait d'aller aux urnes c'est de permettre aux Sénégalais de vivre dans la dignité. mais Bougane balaa dama déglu ma rek euh, Pape nga su ma balaa nit faram fàccee ngeen. balaa balaa balaa nit balaa nit parce que su fekkente ni da nga may da wax loolu. waaw balaa mais moi je pense que. waaw balaa nit di di balaa njiit di yore avion <laughs> balaa njiit di dawal oto buy jar cent vingt millions day fekk ñi nga xam ne ñoom ñoo li jiital ñu am yaakaar ci yow est-ce que Pape Ngagne xam nga ne euh, oto benn ministre sénégalais. mën na jënd six oto yu ministre français est-ce que xam nga ne gouvernement Sénégal 76 francs lay dépensé ci sénégalais bu nekk ci wàllu wér-gu-yaramam weer bu nekk boo ko tegee ci at 912 francs la maanaam paquetu Doliprane la alors que ministre bi yor wàllu wér-gu-yaramam parc automobile am romb na 500 millions genn wàllu milliard man dama ne askan wi nañ leen yërëm loolu ngay wax noonu avion boobu def la problème parce que automobile boobu def la problème pour man askan wi ñu ëpp loolu. non c'est-à-dire man nanguwuma man. non man xam nga fan laay waxee man fi may waxee mooy bu fekkente ni da nga ni da ngay jaay avion bi war a dem ci vol régulier yi yow sa gouvernement say voyage mais yaakaar loolu ni loolu moo gën a moo gën a bëri xaalis que avion bi. dafay fekk nga jël dafay fekk nga jël voyage def ko def ko mu nekk activité. day fekk rek nga jël voyage def ko mu nekk activité xam nga bu fekkee ne euh, da nga bëgg nekk maanaam maanaam euh, nu ngi koy waxeeti mais xam nga réew mi ngay mi nga ba mi Sénégal est-ce que xam nga réew mi nga xam ni ci ci ci nekk jegewul sax développement justement kon kay répondre nga sama question yow koy kon yow répondre nga sama question. mais réew moom yaakaar nga ni mën nga des ci biir réew mi doo tukki doo dem. doo doo link ay relation waxuma la loolu doo def diplomatie doo def dara doo dem doo ñëw. waxuma la loolu waxuma la loolu bu ma wax loolu lu ma waxul waxuma loolu je n'ai jamais dit ça Pape Ngagne dama ne tu l'as bien dit réew mu nekk ci sous-développement waruta nekk ci yenn luxe yi. ñi ko jiitu luxe bi mooy avion. bugaan euh, non mais mais euh, euh, xam nga pour man honnêtement gis nga ñi ñuy seetaan mën nañu ñu parce que tey ñi nga xam ne ñoo dëkk ca village bi ñuy wax Ndong nekk ci Daaru Xudos un village qui a deux ans village boobu boo fay dem amul yoon amul courant amul ndox tey bu ñu taalee seen télé batterie di ñu seetaan nga nekk fii di wax waxu avion ñooñu dinañ ne ñii kii ban réew la nekk. parce que man mënuma comprendre loolu dama la bëgg wax ne fi ma dem ci Sénégal ak li ma gis ci Sénégal. tax na yërmande ju ma amoon ci doomu aadama mu gën a yokku tax na lu ma doon def lu nekk lu ma doon def benn danaa ko dolli ñaar fukk parce que nit ñi nekk nañu ci ay situation yoo xam ne yéene woo ko yow sa doom te man yéene ko sama mbokk donc pour man wax ji du avion yemuma ci avion dama ne ba ci injustice sociale bi am ci salaire ñuy liggéey dama ne nañ ko régler fonctionnaire ak fonctionnaire fonctionnaire quatre vingt pour cent oto yi nekk biir présidence de la république bien sûr pourquoi ab njiit buy génn cinquante oto wër ko pour la pourquoi faire njiit boobu di génn fii Sénégal cinquante oto wër ko bu demee France Angleterre wala nangam nangam day romb kenn du xam ne moom mooy romb kenn du xam ne mooy romb moo tax bu ma gisee yenn saa yi njiit tubaab yi li nga wax ni njiitu yi ñëw li nga wax ni bu nañu bañ ñu xeeb ñu yaakaaruloo ci sa xalaat bi nga am ci jaay avion bi ñu xeeb la ci ci xalaat xam nga lu tax duñ ma xeeb parce que damay liggéey pour Sénégal ci situation bi mu nekk ñu génn ci dem ci beneen situation gis nga Pape Ngagne euh, képp sëñ Tuubaa dafa wax ne képp ku lay xañub xam-xam ku réer la te ku lay réeral la ci yërmande gi mu yegg ba ci na fa firru minhu mu ne boo ko séenee dawal gis nga malheureusement ñi ñu jiite dañoo fexe nëxas suñu xel yi nëkk ñu ci benn situation boo xam ne ñun dañ ci maanaam situation wu gént rek la ñu nekk pam ngañ dama bëgg liggéey ba Sénégal dootoo fi déggati loolu ñuy wax consultation médicale gratuite dama bëgg ñu liggéey Sénégal ba dootoo dégg ci mbootaayu jigéen yu taxaw naan nu jox ñu financement ba ñu leen koy naxee parce que ñi fi ne lañu liggéey loolu lañ ci jublu xam nga réew mu mel ni Allemagne au lendemain de la deuxième guerre mondiale dañ ko yàq ba mu yàq yàqu yaxet waa Allemagne dañoo toog ne waaw léegi ñun lan lañu war a def hmm. est-ce que dañoo war a yenn suñuy loxo di jooy wala est-ce que ñun dañu war a liggéey d'accord ba génne Allemagne ci situation bi mu nekk d'accord bi ñu liggéeyee hmm. ñu génne Allemagne ci situation bi mu nekk créer ay milliardaires yu bari. mais ñi milliardaires yi amee noonu la pauvreté bi bare. ñu def taxaw seetlu ñu toggaat ñu ne ah jaadu na kat ñu defaat une distribution redistribution des richesses. ba tey fi mu nekk nii indice de développement humain bu Allemagne mais moo gën a kawe ci ca Europe. Mhm. loolu mais ndamu kenn ku nekk ci ña nekk foofu la. Mhm. liggéey boobu Pape Ngagne dafa am solo. Mhm. tey fexe ba doomu Sénégal bi. la muy yóotu mu mën cee jot ki amul faju mën a faju ki am bëgg yoon am yoon mhm. ki amul courant bayti njaay bayti njaay mhm. dëkk bii di bayti njaay dañ leen sampal ay lamp cour ay lamp dañ leen sampal ay poto mhm. juróomi at a ngi bi ñu leen sampalee ay poto ne leen dañ leen di indil courant ba fi may wax ak yow nii au vingt et unième siècle d'accord au vingt et unième siècle okay. c'est un village qui est à moins de cent cinquante kilomètres de la présidence de la république. dama ne sondeel la ñuy utilité avion bi rek dama la ci jox benn exemple bu ndaw dama déglu président fédération euh, sénégalaise bu football Augustin Senghor muy demander pour président abal leen avion bi pour ñu mën dem Soudan parce que match bi mardi la bu ñu jëlee vole régulier bi lundi la ñuy egg match bi mën na compliqué mais ñu bu ñu amul avion bu ñu defee loolu. xam nga xam nga Pape Ngagne encore une fois man ak yow bokk ñu nu ñu xalaatee man sama xalaat mooy lu yërëm sénégalais bi. yow yaa ngi xalaat bokk xanaa bi ma lay wax nii rek nga xam ni dafa a xam nga xam nga man li ma gëm match yoo xam ne ay match international li ma gëm international day fekk sa biir am dara. ki biiram amul dara xalaatul. warul dem warul football. non dama ne ki biiram amul dara xalaatul match international. ki nga xam ne buy génn ci village am ci saret lay teg jabaram ji nga xam ne dafa nekk ci digg digg diggu digg neuf mois mu war koo yóbbu mu mucc. mu teg ko kooku amul. problème problème avion. waa Kayaar yi nga xam ne bu ñu feebaree dañ leen di teg ci oto pour yóbbu leen ci beneen dëkk pour faji leen. ñooñu amuñu. problème yow bi nga mais dama dama ci gis lu lu parce que. aéroport bii ñu tëj ci sa programme da koy tijji. dama koy ubbi di tijji aéroport. non loolu laa bëgg nga wax ma. ok boobu laa bëgg nga expliquer ma ko. parce que aéroport bii ñu tëj da koy tijji. encore une fois. li nga euh, li nga. fàtte. mooy da nga jàkkaarloo quelqu'un qui est un opérateur économique. da nga jàkkaarloo koo xam ne. Ah, présenté naa la ko. dama dama tax da nga koo xam ne c'est un opérateur. léegi maa lay déglu du ab politicien. man du ma politicien. ok moi je suis un acteur de développement. mënuma comprendre aéroport international Léopold Sédar Senghor ñu def ci liñ ci def ci alal def ci liñ ci def ci milliards. Mhm. yow nga gis ne ba bi ñuy déménager aéroport bi ñu ngi koy réfectionner. li mhm. ci def suñu xaalis. Mhm. tey ñu ne aéroport boobu dañ koy tëj. Mhm, mhm, mhm, keroog bi taw bi amee. ba ñu tëj aéroport Diass fan la vol yi doon wàcc. dañ leen détourné ci ñaata yeneen réew. fa lañ leen détourné fa lañ doon wàcc. alors mais pourquoi ñu war a continuer ci situation boobu. aéroport Léopold Sédar Senghor. ñaata alal lañ ci def. tey yow boo jugee boo jugee Ziguinchor 30 minutes ngay def ci avion bi yegg si Dakar. boo yegsee dakaar nga def 45 minutes jógee jas pour yegsi waat Dakar et nag bu ñuy waxante dëgg. mais yow réew yu ma ne non ma ne dem nga bitim réew. non déggoo ma de gis nga euh, aéroport yi boo ma ma yegg rek pap dama ne réew yu baax yëpp. waaw dëkk yu yëpp ñaar ñett ba ñeenti aéroport la ñu am. Euh, aéroport yi nekkul ci biir dëkk non non ma ne ñaar ñett ba ci ñeenti aéroport la ñu am. Mhm. réew yu baax yëpp am na ñu ñaar ñett ba ci ñeenti aéroport donc man li ma gëm mooy aéroport bi mën naa jëriñ Sénégal non c'est-à-dire man ni nga ma tontoo ci avion bi mooy ni nga exemple bi nga joxe ci àll bi jafe-jafe yi ñuy jànkonteel mais loolu yaa ngi ko wax. ba pare mais aéroport aéroport day créer richesse wala xamuloo ne aéroport day créer richesse xamuloo loolu yow xamuloo ne aéroport day dugal xaalis est-ce que xam nga aéroport jas bi presque pour 85 pour cent aéroport bi aéroport. Léopold Sédar Senghor kon da jàpp ni avion présidentiel du dugal xaalis. mais dugalul xaalis c'est un c'est un c'est un de charge. ay charge avion présidentiel dugalul xaalis dégg loolu li ma la wax ay charge la loolu laa gëm man li ma gëm encore une fois mooy li ma la wax man gëwuma débat wu avion présidentiel man débat bi mooy booy bi nekk ci réew mi amul issue amul xalaat ba yaayam di jaay ooram di jaay takkaayam pour di ko jox naan ko demal bitim mhm. réew parce que foofu moo gën a naat ak ni jur doom neexee nga mën a jël sa takkaay jaay ko jox ko ni ko pour mu dem Libi wala mu dem traverser Méditerranée bi bakkanam mën caa des situation de désespoir boobu yóbbu nit ki ci situation boobu loolu laa bëgg ñu corriger ko et ci loolu laa nekk kon bépp moyen bu mu mën a am buy permettre sénégalais bi que mu nekk dans des situations yu koy permettre mu vivre dans la dignité ci loolu laa nekk. président demal euh, Touba Bougane s'il vous plaît demal demal Touba. bul fàtte ni est-ce que dem nga Touba ci ñetti fan yu mujj yi dem nga Touba. dem nga ci yenn gox ci banlieue bi ci ñetti fan yu mujj yi nga gis nit ñi ni ñuy dundee ak ndox. Pikine laa dëkk. Pikine nga dëkk mais dëkk loo fuy taa fa nga dëkk ci Pikine taawul foo ñu waxante dëgg. mais am na ci ay gox ci yëmbal ak ñoomin seen yoo xam ne boo fa yeggee di nga xam ni nit ñi jafe-jafe yii ñuy dund. nit ku leen yërëm dong moo leen ci mën a génne boo demee Touba ak Touba ni mu day ak li Touba représente nga gis ma gis benn vidéo ak loo xam ne man dama ko dundal sama bopp nit ñi nekk ci yenn situation yi nekk ci yenn euh, situation de désolation yi. mais gisoo ci amélioration. inondation bi gisoo amélioration. lan mooy amélioration bi. gisuloo nii wàññeeku na. gisoo nii wàññeeku na yow. lan lan lan moo wàññeeku. mais bi nga fi def SOS mbënd mi ne ci xaalis boobu ngay wax noonu ni ndox mi meloon est-ce que melaat na ko kañ la ko a yàlla dafa sotti wut ndox man mu ni toll bu ko sotti woot ko sotti waatoon ñu delluwaat ca nañu newoon xam nga euh, Pape Ngagne il faut ñu nangu gis nga réew mhm. nga dimbali sa askan il faut nga yërëm leen si léegi leen doo leen génne ci situation yi ñu nekk man dama am benn xalaat am benn gis-gis boo xam ne li ma jàpp mooy ñi ñu jiite du ñu dugal mukk xaalis ci lu nit dul gis je vous donne un exemple regarde cité góor gi cité kër góor gi cité la bu ñu créé il y a combien d'années il y a six ans ou sept ans c'était en 2008 si je ne me trompe ci lañ ko commencé tabax mais 2000 cité kër góor gi ba fi may waxee ak yow nii day taa am na ci côté yoo xam ne ba fi may wax yow nii boo demee da fay fekk ndox mi pour lan parce que ñi ñu jiite jàpp nañ ne xaalis boo koy dugal da koy dugal fu nit di gis waaye doo ko suul alors que assainissement dafa bokk ci réew <coughs> assainissement dafa bokk ci loo xam ne dafay améliorer cadre de vie. d'accord xam nga tey bu ma la waxee ne indice de développement humain Sénégal mu ngi 47e place. Mm-hmm. xam nga c'est la qualité de la vie. Mm-hmm. qualité de vie bi moom lañuy moom la ñuy natt. Mm-hmm. inondation yooyu daf ci bokk. waaw bugaan tali yi daf ci bokk. bugaan may ma may ma may ma insécurité bi daf ci bokk. Mhm. parce que tey ñàkk sécurité moo tax suñu doom yi ñu leen di rend mhm. ñàkk sécurité moo tax tey suñu yaay yi ñu leen di agressé. ñàkk sécurité moo tax tey bari na loo xam ne kenn mënu ko def et quand tu regardes dans ce document j'en ai parlé est-ce que xam nga ne Sénégal n'a pas de plan d'orientation stratégique pour la sécurité nationale est-ce que xam nga loolu. Mhm. xam nga loolu. est-ce que xamoon nga ko. xamoon naa ko maa lay déglu. mais c'est une catastrophe. Mm-hmm. c'est une catastrophe que tey Sénégal lu day dëkk bu day ni Sénégal. Mm-hmm. ak li mu toll ak la menace terroriste nu mu nekk ci àdduna Sénégal amul plan pour la sécurité intérieure. Mm-hmm. mais c'est un c'est un souci c'est une catastrophe. c'est juste pour te dire lii ay boroom xam-xam ñoo ci gëstu ay boroom xam-xam ñoo ci waxtaan ku nekk sottanteeg sa moroom xalaat ba ñu ne lii kat. jàpp nañ ne bokk na ci 19 points waxuñu mooy 19 point yi jubbanti Sénégal. waaye bokk na ci 19 points yi nga xam ne mën naa jubbanti Sénégal. d'accord président Bougane est-ce que xam nga ni mandat bi ci constitution bi 5 ans la yem ñaari yoon nga koy renouveler. absolument yéene bi yëpp lu ñu ci mën a def la nga yaakaar. mais euh, nguur état continuité la da ngay def li nga mën a def bàyyi keneen def. d'accord man loolu laa gëm. ok sa ça veut pas dire boo ñëwee. Mm-hmm. li fi nekk yëpp dara baaxu ci non non non parce que aujourd'hui su ma jëlee nguur gi en 2019 mhm. mais le PSE du ma ko sànni ok PSE danga koy améliorer continuer ko c'est-à-dire mënuñu kenn ku nekk bu ñëwee indi plan wu boppam parce que nag nguur kenn état kenn du ko doxalee noonu mhm. am na loo xam ne defoon nañ ko fi nee naa la y avait euh, le plan Sénégal horizon 2015 xam nga kañ lañ ko lancé woon. Mhm. en 1988. 88 xam nga kon moo daan kon ministre du plan. ok c'est feu Djibo Ka. Mhm. et ñoom ñoo yoon ci plan horizon 2015. Mhm. et loolu plan la boo xam ne plan bu amoon njariñ la. d'accord donc bi ñuy ñëwee xëy na bu ñu sukkandiku woon ci plan boobu danañu mën a rectifier lu bari. d'accord et je dis encore une fois man bokkuma ci ñuy wax ne lépp dañ ko fi dindi. non. on est une grande nation. voilà nous avons de grands intellectuels. Mm-hmm. Mm-hmm. ay nit ñoo xam ne ñu xam nguur lañu. Mm-hmm. am na lu ñu liggéey la ca des faw ñu continuer ko. boole ko ak ñun yéene ak doxalin ak xalaat bi ñu am. ngir luy defar Sénégal. Euh, Bougane li nga wax ci PSE est-ce que du jox dëgg ñi lay jiiñ ñi euh, ñi lay jiiñ ñi da ngay baare yëgoo ak président Macky bu ma ñëwee li fi nekk duma ko fi jëlee dama koy continuer baat boobu nga wax est-ce que nekkul. xam nga lu lu luy jox dëgg. ñi nga xam ni xaw nañu ñaaw nañu njort. ci ci ci yow ak président day day wane sama dëggu rek man Macky Sall gisewu ma ak moom. non waxuñu gisee mën nga ko bañ a gis nga ko bañ a gis. gis ku mu euh, gis s'il vous plaît euh, Pape Ngagne. waaw c'est c'est une question qui est très sérieuse. donc je crois que il faut nga bàyyi ma ma tontu ci loolu yow journaliste nga. Mm-hmm. mosoo ma gis ak Macky Sall mosoo dégg nit na la gis na ma ak Macky Sall mosuma am acquaintance ak Macky Sall au moment où je te parle toutes mes sociétés je dis bien toutes les sociétés qui m'appartiennent au moment où je te parle ont reçu des courriers des impôts de la douane ou et cetera et cetera pour des missions de vérification wak nangam nangam non ma ne wax ko ci olof bépp këru liggéeyukaay bu ma am bépp ah, société bu ma taxawal bi ma commencé ak léegi mhm. bi ñu génnee programme bi te wax ne ñiy liggéey ci ministère de l'économie et des finances yenn gratification yi yenn indemnité yi ñuy jox yenn fonctionnaires yi ñu tegul fenn mm-hmm. ma ne dañ koy xool dañ koy revoirat bi ma ko defeek léegi mooy yi ñuy jox inspecteur impôt yeeg ñoomin seen ba ma ko waxeek léegi amul sama benn société bu ñu épargné yépp yónnee nañu leen ay mission de vérification dama la bëgg wax ne il faut que yéen ñi nga xam ne da ngeen di am capacité pour raxas xel pour di waxtaan ak nit ñi pour di leen wax ñuy dégg pour di leen gindi il faut ñu revoirat position yi. dara gënul leer li ñu def. ma ne ma ne wax la question bi nga leeral ko yow sa jëm bopp. ma mayee rek nañ ci lu a leer loolu. boo ma mayee rek incha ma yegg ci. ok Macky Sall li ma wax mooy li ma gëm état continuité la. amul benn état boo xam ne bu président. bi nga war a gëm sa programme PSE euh, non non waxuma la loolu. le PSE c'est un plan boo xam ne dañ ci dugal xaalisu Sénégal boo ko jëlee sànni ko ci mbalit mi suñu alal la man meluma comme ñi nga xam ne ay politiciens lañu. mais vision la euh, aussi ma rek may ma rek vision la vision la aussi. Pape Ngagne euh, boo ma mayee rek. ñu yeggale dama ne. Mhm. bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy ñëw. di def politique politicienne di wax di sànni man tey élève u Sénégal boo xam ne dafa dugg ci classe ma jox ko instituteur sama yéene mooy man ci sama réflexion mooy kii dama investir ci moom man état dama investir ci xale bi naka laay récupérer sama investissement mooy xale bi mu am liggéey donc mënuma comprendre tey ñu am ay gouvernement yoo xam ne dañuy former ay nit di former ay chômeurs à l'université nit am diplôme am ba pare nekk di taxawaalu parce que tout simplement ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi bàyyiwuñu xel ci ne élève bi investissement lañ def ci moom mhm. kon investissement boobu dafa war a jur donc c'est juste pour te dire man continuité de l'état laa la wax jeune ne parle pas du plan de Macky Ah, non euh, euh, s'il vous plaît euh, s'il vous plaît Pape Ngagne ce qu'on dit est important <laughs> il faut pas ngeen di jaxase xelu nit ñi non yow yaa bëgg yow yaa jaxasoo ci sa bopp yow yaa jaxasoo ci li nga wax quand on fait quand waxuma man li ma li ma wax jaxase voilà quand on fait du journalisme mhm. faisons du journalisme mhm. quand on fait de l'opposition ou de la politique mhm. faisons la politique dama ne PSE xaalisu Sénégal lañ ci dugal loolu kenn mënu ko dindi suñu alal la sama alal la alal jiñ ci dugal damaa bokk ci ñi nga xam ne dañ ciy dugal seen alal parce que samay société waaw mais Pape Ngagne quand même may ma Pape Ngagne Pape Ngagne da may may quand ma yeggale sinon ma bàyyi la yow nga yeggale je vous parce que am na loo xam ne jaxase nit ñi la ne jaxase nit la ce que j'ai dit est très clair le PSE moom mi fi nekk daf ci dugal suñu xaalis doo ñëw ne PSE baaxul dama koy taxañ dama koy dugal ci poubelle bi gëwma loolu ñiy wax loolu populisme la waxuma gëwma loolu dama ne da ngay xool li ci baax nga continuer ko xool yow li nga indi dolli ko ca ngir mën a defar Sénégal Sénégal du benn nit moo koy defar Sénégal du ñaari nit ñoo koy defar mmh. Sénégal du benn président moo koy defar mmh. li ma gëm man encore une fois mooy ne réew continuité la que dafay am combine man ak Macky Sall man Macky Sall demalu ma fenn mmh. dama ne man Macky Sall demalu ma Macky Sall mosumaa defaral tarafatal ay ni du sama groupe de presse du man njiit mi ma doon du kër gu ma jiite du suuf su ma jox du un franc bu Macky sàll mën a musa def ci man kon gisuma lu tax man may liggéey pour di ko jox Macky Sall mhm. wax jooju wax ju yàqu la ña koy wax ña mhm. koy wax mooy ñi buggaan tiital xam nga sànq wax nga ko mhm. nee nga buggaan ba mu ñëweeg léegi mbooloo mi koy topp politicien li mu bëgg loolu la gën a ragal mooy mbooloo mbooloo mi may topp yaakaar lañ am ci man. te xam nañu ne non man man may ma ma ñëw rek. waaw may ma yaa ngi bëgg a wax mbooloo mi lay topp. mbooloo mi lay man li ma wax c'est très simple. boo ma mayee foo dem nit ñi nga xam ne ñi ngi lay déglu pour nga wax leen candidat nga wax euh, ñu sa candidat nit ñi nit ñi ay nit ñu ngi fii yor parti politique ak leneen ak leneen depuis ay vingt ans. Mhm. mënuñoo dajale fukki nit. d'accord kon tey man su ma jugee askan wi topp sama ginnaaw c'est parce que am nañ ci man yaakaar. Mhm. li ma bëgg nga bàyyi ci xel rek. Mhm. mooy Macky Sall. dafa muñ Bougane Gueye pendant six ans et demi am ñu mu àndandool di nguuroog ñoom xanaa kon waay waaye man mun naa am la muñ ko juróomi weer juróomi weer ko fi dese man loolu laa gëm juróomi weer moom moo ko fi dese pour man ma toog ci place am juróomi weer ko fi dese ay leneen li nga xam ne loolu laa gëm aussi mooy Macky Sall mën naa tànn ñi muy bëreel mmh. maanaam mën naa tànn ñay dem ak moom ci jongante bi d'accord mais mbot mi ñu koy dóor du moom moo koy tànn du tànn ki koy mbot. Mhm. loolu laa bëgg nga comprendre ko donc li ci nit ñi wax. leer na loolu ña koy wax. ñoom la intéressé Bougane li nga wax leer na exemple léegi li ma bëgg ñu ñu taxaw ci mooy ci ci opposition. wax nga ni doo politicien mais dafay am solo aussi parfois euh, ci yenn combat politique yi nga xam ne dafay friser un peu peut social muy kaawu xalifa muy kaawu Karim ñu gis ci sa position su amee combat ci tali bi ñu gis la mais kenn du la gis ci loolu lan moo tax loolu aussi. je suis pour des combats de principe nee naa la bu dee def politique pour politique parce que politique dafa am définition étymologique mhm. li politique di signifier Sénégal du la même chose lay signifier France wala Italie mhm. man dama bëgg une nouvelle relecture des perspectives dama ne je suis d'accord sur des combats de principe bi ñu waxee parrainage démontrer à tout le monde que je suis contre le parrainage. wax naa ko. li jëm ci Khalifa Sall li jëm ci Karim Wade mais yii yëpp du fi guddee. kumba am ndey kumba amul ndey. principe bi mooy dóor doom ma ne ma ne ma ñëw rek dóor doom làq doom. du fi guleet ñi koy kaas tey ñoo ko doon def démb. ñi ñu koy def tey jii defoon nañ ko fi ñoom moo tax ñu ne loolu moo waral ñu war a jële fi système bii fi moo tax nga maandu ci non non ma ne man je dis man pour man c'est moo tax nga maandu ci non non encore une fois mënu ma ci maandu parce que ñàkk cee maandu moo tax man ma jóg parce que je trouve que li ñu def Karim li ñu def euh, Khalifa dama gis ne Sénégal rek ngay gis ay nit ñoo xam ne dañuy wër dañuy wër dañuy nekk rek di yuuxu sàcc wëpp sàcc yi wëpp sàcc yi mais du ñu fexe mukk ba bool bi wala ba boutique bi kenn bañ cee sàcc yow ba nga ba ba nga jimmeeg léegi da ngay dégg rek ñu naan Sénégal sàcc nañ fi nangam diw jiiñ nañ ko nangam diw sàcc na fi nangam may ma ma ñëw rek. diw jiiñ nañ ko nangam tarxis ci leneen dama la wax ci lu leer. c'est-à-dire combat yooyu ma la wax. loolu laay wax nii. waaw doo ma dégg boo ma mayee ma déglu nga comprendre dama ne sa kër boo fa dencoon xaalis bu ñu ñëwee rocc ci nangam di nga jël ay disposition ba kenn du ci jëlaat nangam. mais dama ne Sénégal rek ngay gis dañuy yooxu ub sàcc yi rek du ñu seet mukk nañ la ñuy def ba sàcc yi bañ bañ a sàccati. xalifa sàll jiiñ nañ ko ne danga jël nangam mu ne leen li ngeen may jiiñ man nii jox naa leen nangam ci caution ñu ne ko caution bi nga ñuy jox. un milliard huit lañ koy jiiñ mu ne dinaa cautionner deux milliards ñu ne ko li ngay cautionner intéressé wuñu dañ lay tëj kaso juróomi weer alamaan la juróomi million lan moo intéressé juróomi at euh, juróomi at mm-hmm. lan moo intéressé sénégalais bi jotaat xaalisam wala tëj nit ki ñaata mbokk nga am yow yoo xam ne sàcc nañu ginaar te mënuñoo dellu seen kër ñu ne diw yoreel nga réew mi cent trente nangam milliards nga jox ko passeport jox ko avion mu génn réew mi nga dégg bërki démb ministre de la justice naan la bu dellu si waatee ci réew mi de danañu fay suñu xaalis kon lan moo ñu intéressé récupérer suñu xaalis wala génn nit ki réew mi justice boobu ñuy fooye ok justice boobu ñuy fooye moo tax ci biir programme bi ñu ne le chef de l'État ne doit plus être le chef suprême de la magistrature d'accord parce que jàpp nañ ne kenn ku nekk ku ñëw mhm. ak sa mbiri bopp kenn ku nekk ku ñëw ak ñi ngay fowee suñu justice la preuve regarde ce qui s'est passé le vingt 23 juin ñi nekkoon ci biti en avril ñoo nekk ci biir ñi nekkoon ci biir nekk ci biti alors le Sénégalais est devenu mûr on a quand même une grande nation d'accord je dis de manière très claire moi je suis sur combat de principe deuxième tour bu fa eggee nga ni doo jàppale kenn lu tax loolu da nga dégg ma wax la ko damay laaj non musuloo wax loolu. da ma dégg man ma wax non damay laaj. non damay laaj non mës ko wax wala musuloo ko. non da nga ma wax ko. Euh, d' accord deuxième tour bu ñu fa eggee. Hmm. kan ngay jàppale. mais du ma jàppale kenn parce que man damay dem deuxième tour pourquoi may jàppale nit. man xalaatuma man li may xalaat. bugaan Pape Ngagne da nga may déglu. waaw doo ma wax loo lu ma bëggul wax. man journaliste laa comme yow dama ne deuxième tour bu ñu fa yeggee man ku may àndal deuxième tour kay laay xalaat maanaam kan laay xëccoo jël deuxième tour. day nekk euh, x y wala z man kan laay ànd ndool deuxième tour laay xalaat mais man xalaatuma kan moo may jàppale wala kan laay jàppale. deuxième tour yaakaar naa ni gëm nga yàlla xam naa ko loolu mënuma ci am doute. Mhm. mën nga jàpp ni mën nga dem deuxième tour comme mën nga fa bañ a dem. ma ne non xam nga bugaan yi ngay def dañuy dañuy wax dama ni deuxième tour bu ñu fa eggee yow demuloo deuxième tour. est-ce que jàpp nga pour ànd pour jàppale ki nga xam ne moo nekk ci opposition bi wala Macky Sall ngay jàppale. dégg li ma la wax de manière wala déggoo li ma la wax Pape Ngagne di leen déglu système bi Macky Sall ci la ñi fi nekkoon ak ña fa nekkoon ak ñi fi jaaraat ak ñay bëgg duggaat ak ñoom ñëpp ci lañu mois je la pour combattre un système système bi nërmeel sénégalais bi système bi def sénégalais bi yalwaankat système bi nga xam ne tax na ba nit ki bu ñaqee dootul tedd système bi nga xam ne da ngay gën di ñakk di gën di torox ñooñu laa ne loolu laa fiy jële ak ñi ko fi indi ak ña leen suuxat ak ña ànd ak ñoom pourtant ci système boobu nga nekkee milliardaire ban système système bi ngay wax ni système bi ban système. mais système bi. muy environnement des affaires bi muy leneen. je suis pas dans muy environnement des affaires muy leneen. Pape Ngagne bul bul daj bul bul bul jaxase xel. Mhm. dama ne. Mhm. moi je ne suis pas dans ce système politique. xam nga man waxuma système. non dama ne je parle du système politique qui aujourd'hui moo indi réew mi fi mu nekk. déggoo man la dama delluwaat si li nga wax xam nga boo waxee loolu nit ñi danañ jàpp ne est-ce que du système bi moo tax moo am alal dama ne la man damaa ñaaj mhm. dama jóge ci suuf reporter présentateur ba yegg fi ma yegg mhm. nekk ci yeneen business la ma doon def Sénégal ku ne fii gis na ko je suis dans la comme j'ai géré Nokia en Afrique de l'Ouest mhm. j'étais le euh, euh, managing director de Grey International West Africa excepté le Nigeria de 2005 à 2009. Bougane des budgets. Par, ma, non mais may yeggale li nga wax day jaxase xel. parce que boo nee nekk milliardaire ci système bi. c'est pas vrai. xam nga ci système bi la bokk. non ma ne ma ne ci dëkk bi. Euh, loolu ci système bi la bokk. waxuma la politique yooyu tam moi je parle musuma la dégg nga nekk député. musuma la dégg nga nekk maire musuma la dégg nga ministre. donc xam naa ni système bi enrichir la. je je concerne, okay. <coughs> votre talent, mhm. euh, en tout cas vous mhm. Mais j'aimerais vraiment mhm. que boo waxee dara nga may ñu ñu leeral askan wi parce que da ngay poser ay questions yuy lënt xel. parce que boo nee ci système bi nga amee alal mën naa jaxase xelu nit ñi dama lay delloo ci li ma waxoon. ne la musuma ànd ak nguur. mais bon musuma liggéey ak leer na itam. non leerul. non je vous en prie leer na musuma nguur. leer na Bougane. musuma ànd ak ku ànd ak nguur. d'accord musuma liggéey ci marché nguur. Mhm. donc lu ma am sama ñaq moo ma ko may. d'accord je suis dans le privé. Mhm. je me suis fait dans le privé. dama ne la da nga ma laaj ndaxam damay xeex Macky Sall ma ne la ce que je fais c'est au-delà de xeex Macky Sall romb naa loolu. Mhm. d'accord li fiy jëli système bi ci laa nekk. deuxième lu fiy jëli système bi du fi ba Macky Sall. deuxième tour deuxième tour yow Bougane ndax xalaat nga keneen ci opposition bi nekk fa nga jàppale ko. dégguloo li ma la wax képp koo xam ne man en en en premier. waaw man damay dem deuxième tour. ci loolu laa nekk liggéey boobu laay def ñàkk jariñu kiy liggéey ak kiy wax weer wu dee mënuñoo bokk li ñuy fayu liggéey bi may liggéey. li liggéey bi may liggéey xajul ci gaa yi liggéey bi ma nekk di liggéey xajul ci gaa yi. Mhm. loo li ma la wax man xalaatuma ku may jàppale man deuxième tour man maa ngi xalaat man kan mooy ñëw jàppale si ma man deuxième tour pour ma jëlee ñii fi nekk. mais xam nga di boo taxawul ne ku nekk deuxième tour ma jàppale la boo fa nekkee kenn mën na la bañ a jàppale. bariwuñu ñi mën a dem deuxième tour mon frère bariwuñu de. <laughs> mais est li ma lay wax dégg ko. mais ñooñu. ñi nga xam ne soo taxawul soo taxawul taxawuloo potentiel yooyu. nga ni man deuxième tour ku fa dem dinaa la jàppale. mais forcément dégguloo li ma la wax xam nga am na loo xam ne pour man détail la et comme moi je suis un chef d'entreprise je préfère avancer sur des choses concrètes. Mhm. dama la wax de manière très claire ne la mon combat c'est d'enlever ce système mon combat c'est d'éliminer ce système mon combat c'est d'éradiquer ce système système bi bu ma ko fiy jëlee du ma fi ba Macky Sall mënu fee nekk. Mhm. mais est-ce que système bi mënuñu la ko reprocher ci sa groupe de presse man damay déglu groupe bi. damay déglu rajo bi damay liir journaux yi damay seetaan télévision bi surtout rajo bi mais propagande bi nga xam ne ci la gëm sa bopp di def est-ce que yow doo toog sax nga am ci kersa ndax am nga yoo xam ne ñoom nga bokkal man du ma déglu non du ma déglu rajo est que doo ci am kersa non je parle de Zik FM wala ngay seetaan par exemple Sen TV est-ce que doo euh, jékki-jékki euh, ci propagande bi nga xam ne yaa ngi koy def ci groupe bi est-ce que doo jékki-jékki nga am ci kersa ma ne ma ne mhm. dama la wax lenn dama ne man du ma déglu rajo du ma seetaan télé donc la ñuy def ca télé wala la ñuy def ca rajo man. mais léegi yow mais attends attends je ne suis pas un patron de presse. attends attends attends da nga may déglu da may déglu. je ne suis li ngay wax nii rek dafa dafa réconforté wul sax liggéeykat yi. du ma leen seetaan du ma leen déglu. mais parce que. xam nga loolu aussi loolu loolu. mais parce que dama leen seetaan du leen déglu. mais oui parce que dama am leneen lu may def dama nekk ci beneen liggéey bu ma amoon jot comme yow nekk journaliste nga xam ne aw ma leneen lu ma liggéey lu may jàkkaarloo ak télé beeg rajo bi bu boobaa ma xool la ñuy def du ma lire journal du ma seetaan télé du ma déglu rajo c'est exactement sax parce que moment yi nga xam ne danaa am jot boobu man ko man nga xam ne aw ma jotu euh, samay doom. kon propagande propagande bi ci dee média xam yëguloo ko yow propagande gëm sa bopp bi ci dee média yëguloo ko loolu yow yaa ko wax parce que le CNRA est là pour réguler si jamais. ñoom defoon nañu loolu xëy na CNRA dina dal ci seen kaw. mais yow CNRA yow itam xam na dégg nga leen. non mais je te dis encore une fois Pape Ngagne je veux que ñu wax waxu Sénégal non non Pape ah. Ngagne Pape Ngagne ne faisons pas euh, euh, dans les détails xam nga malheureusement pour man des médias mm, Bougane intéressé wul Sénégalais yi li intéressé Sénégalais yi mooy dundu Sénégalais yi li intéressé Sénégalais yi mooy tey ki am ay problème ñu mën a lijjanti ay problème am. Euh. li intéressé Sénégalais yi mooy tey mu ngi jàkkaarloog ay nit ñu mu war a tànn naka lay tànne ñi muy tànn nan la leen di tànnee lan mooy base programmatique bi nga xam ne war nañ ko tegal Sénégalais yi moi j'aurais j'aurais aimé véritablement que tu me poses des questions euh, techniques qui permettront aux Sénégalais d'être édifiés sur ce programme sur ces 19 points honnêtement mais pour man des médias c'est une entité comme vous kenn ku nekk mu ngi def liggéeyam ci wàllu presse mhm. képp koo xam ne am na lu mu ci def lu jàdd yoon am na ci gendarme boo xam ne mu ngi fi pour di liggéey ci loolu donc euh, nañu xuus ci ci ci point yi préférence nationale nga ni dañ ko war a def loi oui est-ce que jàppaloo ni itam macha allah réew moo xam ni macha allah réew moo xam ni mhm. dafa toll ci ci raam mhm. est-ce que yaakaar nga ni warul mën a ubbi ay buntam bitim réew ñëw jàppale ko gis-gis boobu nga am est-ce que du gis-gis bu tënku. d'accord gis-gis bu tënku nee naa la sànq képp ku lay dëddaleeg xam-xam ku lay réeral du samay kàddu kaddu sëñ Touba dama la wax ne la euh, protectionnisme dafa am ci réew yi développé yépp tey Mauritanie gii boo demoon bëgg fa créer société. il faut nga am un Mauritanien dans le capital Sénégal rek ngay ñëw bëgg créer société fu la neex nga jóge bu la neexee nga jóge Laos nga ñëw taxaw créer sa société yow pour sa bopp Dubaï Arabie Saoudite feneen ak feneen ak feneen ba ci Maroc protéger sa sa sa réew tekkiwut ne da ngay tëju déedéet mhm. je vous donne un exemple l'Éthiopie mhm. est-ce que xam nga am na ay secteurs d'activité yoo xam ne étranger du fa investir dans les banques étranger du fa investir dans l'immobilier étranger du fa investir dans la grande distribution en Éthiopie étranger du fa investir et aujourd'hui l'Éthiopie est en train de devenir la Chine de l'Afrique à cause d'une industrialisation légère extrêmement avancée baal ma nga wax olof si euh, ci euh, maanaam industrialisation boo xam ne mhm. ñu ngi koy def mhm. fexe ba nit ñi mhm. mën a am ay usines yu ndaw ay parce que tey usine doonatul looy def mu yëng mu ngand mel ni sokosin mhm. mais usine mën nga koo dugal tey ci biir kër mën nga koo dugal ci salon muy liggéey normalement mhm. réewu Éthiopie foofu lañ toll donc moo tax ñu ne fexe ba la préférence nationale dama lay jox benn euh, benn xissa xoolal Ila Touba Ila Touba amul benn société sénégalaise bu participer ci Ila Touba loué leen sax benn oto société bi ñu indi muy defar Ila Touba lépp loo xam ne ñoom dañ ko soxla dañ ko indaaleel seen bopp ba ci seen i dawalkatu camion yenn sax yi dañ ko indaaleel seen bopp donc ñun suñu réew lim ci bijaar jariñoo lan la suñu doole jëlal peel jëlal et cetera pour jaay doole maanaam liggéeyu manœuvre liggéeyu manébar d'accord alors ñun ñu ne bépp société buy duggati ci Sénégal di fi liggéey. il faut société boobu def transfert de compétence maanaam bu fekkee ne li ngay def amul ci réew mi. di nga jël ñaari société yoo xam ne da nga leen di tàggat. pour que yow boo demee société yooyu mën a defal seen réew xam nga Pape Ngagne. réew Afrique yi il faut ñu comprendre ne. secteur privé. dañ ndax compétence yi ci préférence nationale bi mi ngi fi. compétence yi mais loolu planification la. Mhm. xam nga loolu planification la moo indi tey suñu pétrole bi dégg nga institut bu nekk mu ngi créer ay filière naan ñëw leen jàngale métier du mm-hmm. pétrole parce que waajaluñ ko. d'accord et pourtant xam nga mm-hmm. pétrole kañ la génn Sénégal. Mm-hmm. kañ lañ xam ne am nañ pétrole. 99. imagine 99 ba léegi on n'a pas su lancer des filières. pour préparer nos cadres. d'accord au métier du pétrole. voilà donc donc dama la bëgg wax ne rek réew bu ko bëggee defar. surtout suñu réew mii. il faut ñu dooleel le secteur privé. d'accord il faut ñu am ci biir Sénégal mën nañ ko defar vingt ministres. ñun euh, fi may wax ak yow nii. waaw non vingt ministres ci sa programme. non ma ne moom laa lay wax ni dama dama lay leeralal ne la ñun ci li ñuy liggéey. waaw nekkuñu sax ci vingt ministres. Euh, équipe bi ci liggéey ils sont à 17 ministres au moment où je vous parle. mais 20 ministres moo nekk ci programme non dama ne waaw mais dama ne euh, xam nga loolu projection la. waaw prévision la. ñun dañuy fexe ba li ñu waxoon. Mhm. ñu mën a def lu néew loolu. d'accord au moment ou je te parle nos équipes travaillent sur les deux cent premiers jours ñun liggéeyuñu sax sur les cent premiers jours on est en de travailler sur les deux cent premiers jours. très moo tax ma ne la. Mhm. quand un économiste boroom xam-xam bu mel ni Ibrahima Sall gis programme bi. Mhm. ne programme bi moo gën a réalisable ci programme yi mu jot ñun dañuy am fierté. parce que yéene bi c'était effectivement ça wax na ko mhm. nee na li ëpp ci décision yi ñu indiqué mhm. mën nañu ko jël le lendemain de mon élection mhm. c'est-à-dire bu le bu ñu introniser le lendemain mën nañu jël mais bu boobaa revoir constitution mun na ci bañ ñàkk absolument waaw ah. parce que constitution bi il faut ñu revoir ko xam nga lu tax ñu koy revoir xam nga tax ñu koy revoir Sénégal président waratu fi nekk di buur di bummi d'accord xam nga lu tax ñu koy revoir ok parce que constitution yi. dañ koy jël mel ni tailleur ñu koy daggal ay nit. ci lu leen neex. merci ñun ñu ne. Mhm. danañ fexe ba constitution bi. Mhm. fii ak boo amee benn modification 15 ans après lay entrer en vigueur. Mhm. xam nga 15 ans yow déjà mandat yi deux la donc yow ak loo mën a def. loolu mënut a doon ci sa njariñ. d'accord dootoo laalati constitution bi pour sa njariñ. Bougane maa ngi lay gërëm bu baax di la may quelques minutes yoo xam ne di nga gën a aborder peut-être <laughs> dara ci programme bi. <laughs> Euh, parce que waxtu bi dam nañu lan ngay tàggoo. <coughs> mais li ñuy tàggoo mooy euh, wax ak sénégalais yi. Mm-hmm. ngir juum bu ñu juumoon ñu bañ koo juumati. Mm-hmm. li fi jëlee Ablaye Wade moo fi jëlee Abdou Diouf li fi jëlee Abdou moo fi jëlee Macky Sall. Mhm. li fiy jëlee Macky Sall keneen ku fi ñëwaat dana la fi jëlee. Mhm. fileeg sénégalais bi ñu ngi koy mettre dans une situation de dépendance fileeg ñu ngi lay gëmloo ne yow pour nga tekki il faut buur teg loxo ci yow fileeg ñu ngi lay gëmloo ne pour nga tekki il faut président jàppale la on n'arrivera jamais à quelque chose. Mhm. mais Pape Ngagne est-ce que xam nga Sénégal moo ëpp alal France. est-ce que xam nga Sénégal moo ëpp alal Italie. est-ce que xam nga Sénégal moo ëpp alal Ita euh, euh, euh, Espagne pourquoi suñu doom yi di bàyyi Sénégal di daw wuti alal Espagne alors que ñun suñu réew li mu am France amu ko France amul or France amul zircon France amul phosphate France amul lithium France amul naaj bi ñu am ay nit góor ci suñu alal ay nit sëgg ci alal ji ak seen njaboot di ko lekk ñi am di gën di am ñi ñàkk di gën di ñàkk est-ce que loolu dañ ko war a seetaan est-ce que dañu war a seetaan suñuy njaboot suñuy sët nekk dans la débandade nekk ci ay jafe-jafe tey sécurité Sénégal sax mënuñu ko am on a dix mille policiers dix mille policiers pour seize millions quatre cent mille Sénégalais fais le calcul tu vas voir c'est un policier pour seize mille Sénégalais après on te parle d'insécurité après ñu ne la wuy xale yi dañ leen di sàcc après ñu ne la wuy jigéen ñi dañ leen di agressé nga yaakaar ne loolu mënta nekk regarde récemment ce qui est en train de se passer à Darou Khoudoss y une fuite de gaz au niveau des industries chimiques du Sénégal y des hectares ay baykat yu bay ba pare fi mu nekk nii gaz bi lakk na seen tool yooyu yëpp non seulement ñu ngi utiliser seen alal ñu ngi jël seen suuf di exploiter seen suuf gisuñu ci seen bopp waaye léegi ñuy wëlbatiku di leen tegi loraange mm-hmm. alors que pour pourtant le code minier prévoit ça mm-hmm. mais li ñuy tëral li ñuy wax ak li ñuy defal dama bëgg ko comprendre ne dafa am benn fossé bu large mm-hmm. suñu doom yi sa doom bu doon sa sago duñ ko jàngal alxuraan sa doom bu doon sa sago duñ ko jàngal euh, wolof sa doom bu doon sa sago kenn du ko jàngal mag ñu baax ñi lu tax ñu ñuy jàngal Faidherbe lu tax ñu ñuy jàngal Mao Zedong lu tax kenn duñu jàngal euh, Seydi Hadj Malick. jërëjëf lu tax kenn du ñu jàngal Serigne Touba. merci yaakaar nga ne tey élève bu ñu jàngal. Mhm. kon kaati man bu Serigne Touba est-ce que dana génn di toji bus. Mhm. yaakaar nga ko. jërëjëf merci beaucoup Bougane Gueye Dany lañ doon recevoir tey mu nekk euh, njiitu gëm sa bopp ñu am plaisir nag bu yaatu recevoir la Bougane euh, te am mbégte itam ci vraiment nga xam ne indi nga ko xam naa nañ am beneen occasion bu a yaatu nga xam ne dañuy jël 19 points yi benn par benn tey dañu ne woon nañu faram rek mais incha dinañ ko gën a yaatal bu ñu ko programme télévision bi mayee ci campagne nga xam ne jëm nañ ko incha ñu gërëm la bu baax vraiment ci disponibilité bi mbokk yi mu nekkoon faram fàcce ak Euh, ñu leen di jox rendez-vous incha allah alarba ba di ñëw bi ci àlande jërë ngeen jëf. jërëjëf. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp audit yi d'accord jógee du auditer samay doom samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey